ak El Hadj Ousseynou Ndiaye leen nga xam ne rek moom lañu xëyandoo ñu daal koy door a faat jàngoro jii ñu xamal ne loolee ji seetlu gi moo di jàngoroy cancer ma ngay gën a yokk réewum Sénégal la ci gën a nag moo di jàngoro ji jamono ji ni nga xam ne noonu lay yokk yéene kaay gi duñu xam ne am na lu toll ci juróom-ñaari téeméeri nit jàngoro ji dugg na leen ci la ko moo di jàngoro covid 19 ay jafe yu métti la ñuy jànkonteel covid 19 geek li nga xam ne rek yóbbee na ko réewum Sénégal lii yéene kaay duñu xam jamono ji nag tax na am na coppet goo xam ne am na ci yenn ci école yi rawati nag fi nga xam ne rek moom moo di Dakar école élémentaire élémentaire yi jamono ji 8 heures ba 14 heures ngoon mi dañu koo dakkal ci Dakar rek la ñu ko yemale

duñu xamal ne këru téléphone gii nga xam ne rek moom moo di Expresso boo moytul maanaam daal jamono ji ma ngay sukkuraat ndax waa ARTP maanaam daal ñoom waa Expresso sàmmantewuñu ak lépp loo xam ne rek jëm na ci jafe-jafe ak licence yi waaye tamit lu toll ci juróom ne rek yoral nañ ko ak ak ba tax na boo moytuwul ci tëj la jëm le quotidien yéen kaay duñu xamal ne jamono ji kay rebelle nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ca Casamance ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di jàmbaar yi seeni xeex ma nga mel ni sabar ak fetal tuy tuy ja na kay ne rebelle yi ñoo ko yoroon nangu nañ ko jamono ji ca jamono jojee laas yéenekaay di ñu xamal ne Coumba Gawlo Seck dina dakkal lu jëm ci carrière am ci wàllu gooy yéenekaay gi duñu xamal ne moom kay démb la ko xam ne xam ne am na ko wàllu feebar yu ni mel yéenekaay gi duñu xamal ne maanaam daal baat baa am nga xam ne rek dañoo siiw lool te seeni sëy léeg-léeg day yëngutu ay jafe-jafe yu métti yoo xam ne rek dañu ko ciy jànkonteel Les Échos yéenekaay duñu xamal ne benn xale bu jigéen moo tuumaal ki nga xam ne rek moom moo di gi di ñu xamal moom kay dafay xam le ne Ousmane Sonko dafa doon ñëw ñuy maase yaram waag yu ni mel bu noppee ne mbir du ci yem ak jàppante la bëgg yéenekaay yi di xamal ne moom day mbili gi di Ousmane Sonko ba mu ko yëgee moom nag dafa xam le ne dafa xam le ne moo koy doog a dégg yëgul tinul El Hadji Ousseynou Ndiaye ak El Hadji Ousseynou Ndiaye